gërëm waa Kayar gépp ci seen taxawaay tey yaakaar naa Kayar moo fi teew bu fi Kayar teewee chef de village Kayar teew ndey ji réew teew toogal fi nga képp koo xam ne ndomb ak tàng nga yor ndax Kayar dafa am aada ak cosaan saltige teew ndey ji réew teew grand sëriñ teew jaraaf teew yaakaar naa Kayar teew na délégué de quartier kii seen président teew yaakaar naa nday ndawi Kayar teew jigéen ñi Kayar teew yaakaar naa ñoom ñoo wax seen soxla ñoo wax seen bëgg-bëgg tey jiwa waa Kayar ñoo jël logement bi ñoo ko bëgg ñoo ko safoo ñoo ko téye ñoo ko demande ñu defal leen ko ñoom mu ngi nii ñoom ñoo ko moom ñun amuñu fi dara lotissement bee moomuñu ko Kayar ak moom Kayar ak moom nag ñu ngi nii teew ñoo waxal seen bopp ngeen dégg kon nag yaakaar naa ñiy wax ci àll bi yaa tatati di wax ci njaboot gi lan bokk njaboot nag ñëpp mënuñoo bokk yem toujours politique la nekk il faut am ñu ni waaw am ñu ni déet lu yonent bi amu sëñ Tuubaa amu ko ñaanu ma ko yàlla am te yaakaar naa ni mënu ka am kon nag li ma bëgg mooy comme Kayar wax na ñu xam ni wax ji dafa war a jeex Kayar wax na wax ji dafa war a jeex nan bàyyi ni ñi ñu liggéey ñu avancé parce que Kayar lim soxla tey jii mooy ñu liggéey avancé liggéey avancé boobu nag moom laa leen bëgg xamal ni leen kuy wax ndax gaas dafa mairie dafa dagg filaaw mairie na dagaat yeneen filaawo de mairie na dagaat yeneen filaawo lii ma leen wax mooy lii ma leen wax mooy kër sëñ Touba gi nga xam su sëñ Touba dafay def ñetti fan ñu war kaa def kër sëñ tubaa def daara kër sëñ Touba def nan na def nan délibération bi sous préfet approuvé nag ñi nga xam dañoo jël seen kër ci lotissement bi autoroute à péage bi jaar fi yaakaar naa dañ leen a war a delloo seen i kër natt na 9 hectares def nañ délibération bi te yaakaar naa bande filao bi fi la ñuy jël def ko ay kër jox ko nit ñi ñu dëkk yaakaar naa bu filao taxawee nit ñi soxla ay dëkkuwaay amuñu ko Kayar géej gaa ngi ñëw tool yii kenn du fi dëkk mu de ak mbaar moo moonu muur ñu ne ab ñu ne ñu ne ay tund ñu ay tool la ñu wër il faut ñu wut fu dagg pour mën a dëkk te loolu incha allah ci kattanu sunu borom je vais porter le combat dinaa ko jiite naa taxaw ci kanam dinañ ko délibéré dinañ ko dindi dinañ ko jox xale yi dinañ ko jox ndaw yi ñu dëkk ndaw yi dalal leen seen xel damaa bëgg ndaw yi Kayar dalal seen xel yaakaar naa Pape Demba wax na léegi lii bi ma ciy wax ak moom di ci wax ak waa Kayar 100 pour cent booba dara donc ñun dañoo jiital ndaw ci kanam jiital ndaw yi jox leen ànd ak ñoom pour mën a seet fu ñu dëkk parce que ñun kayaar lañ juddoo yara fi màgg seen kër bàyyi lañ dëkk ba tey xam nañ loolu dund nañ loolu bëgguñu ndawi kayaar ñëpp dund loolu pour démontrer à l'opinion sénégalaise et à l'opinion internationale parce que les médias sont, sont ainsi faits que ce lotissement dont on parle tant et qu'on a, on a toujours parlé ce sont les populations de Kayar qui l'ont demandé et qui se sont l'ont approprié. Je pense que Kayar est un village lébou. Quand le chef de village a parlé, quand le représentant des chefs coutumiers, Ndeye Djirew, Djaraf, Saltigué, Ndeye Djambour a parlé, quand le président des délégués de quartier a parlé, quand la jeunesse a parlé, je pense que Kayar a parlé. Et aujourd'hui, Kayar, comme vous l'avez entendu tous, s'est rangé et s'est approprié le lotissement pour en faire une propriété parce qu'ils en ont besoin, la jeunesse de Kayar a besoin de parcelles. Je pense que le message, le slogan que vous avez vu, un jeune, un toit, c'est venu à son heure. Parce que Kayar, vous allez dans les maisons familiales, les concessions, je veux dire, c'est rempli de personnes, c'est rempli de jeunes. Et comme l'a dit le représentant des jeunes, Pape d'Embassy, il y a des jeunes de Kayar qui passent la nuit dehors parce qu'ils n'ont pas là où coucher. Je pense que ce projet, on remercie le bon Dieu et on prie encore et pour notre prédécesseur, l'honorable député Ndiaseka, qui avec sa vision avait vu que ce, cette bande de filles là-haut devait dégager pour que les jeunes de Kayar, pour la population de Kayar puisse avoir des logements. C'est comme ça que nous avons pris en charge ce processus et que nous sommes arrivés à avoir les délibérations d'abord qui sont là pour le lotissement, le bois de village 1 et le village de bois de village qui a été fait par l'honorable député et signé par l'ancien, approuvé par l'ancien sous-préfet de Kermoussa, le nommé Nian. Quand nous avons pris les rênes, nous avons continué pour le processus, pour avoir d'abord l'autorisation du ministère de l'Urbanisme, qui est seul compétent en la matière, qui nous a délivré ces deux délibérations, ces deux autorisations de l'outil. Il fallait une troisième phase, ce qu'on a fait les démarches nécessaires et on a obtenu ce que vous avez ici c'est-à-dire l'autorisation de coupe d'arbre qui est là. Je pense que tout le processus administratif qu'on devait respecter, on l'a fait, on l'a fait dans les règles de l'art. Je pense que donc il n'y avait pas matière à discuter, ni à faire quoi que ce soit pour dire que le maire est en train de spolier les terres de Kayar. On n'en avait pas besoin. Nous sommes nés à Kayar, nous avons grandi à Kayar et nous demandons, Notre famille est à Kayar, et je ne ferai jamais, au grand jamais, quelque chose qui va faire mal aux populations de Kayar. Je serai devant eux, je serai derrière eux, je serai à gauche à droite derrière les, avec les populations pour vraiment tout ce que les populations ont besoin pour essayer de satisfaire ce besoin-là. C'est dans cette dynamique que nous sommes et c'est dans cette dynamique que nous allons mourir et c'est dans cette dynamique qui a abouti à ce logement-là. Je pense, et je vais le dire haut parce que ce que j'ai ici, c'est une délibération qui a été faite pour abriter la maison de Kër Sëñ Touba parce qu'il faut se rappeler Sëñ Touba a fait trois jours à Kayar et cette délibération c'est grâce à moi qu'on a pu l'avoir et c'est approuvé par le sous-préfet on va continuer et on continuera s'il faut dégager toute la bande de filao on va le faire pour donner aux jeunes donner aux populations de Kayar des logements et des maisons pour habiter parce que si celui qui passe euh, sur la VDN en traversant Malika, en traversant euh, euh je pense que cette bande de filao qui est là-bas, c'est la bande de filao qui est Et cette bande de filao-là est octroyée aux populations de ces villes-là pour avoir des logements. Pourquoi nous, à Kayar, les jeunes ne doivent pas avoir ces logements-là On doit l'avoir et je vais porter le combat moi-même pour faire que ces populations de Kayar, ces jeunes de Kayar, puissent avoir ces logements-là parce que c'est ça mon devoir. C'est ça ma responsabilité. Et je vais le faire avec le conseil municipal. Le tour à péage et à traverser et a pris beaucoup de parcelles. On a fait ce lotissement de hectares pour pouvoir dédommager les gens-là qui avaient des parcelles là C'est approuvé par le sous-préfet, le processus en cours et s'il fallait encore abattre des filao, on va les abattre pour loger les populations. Je vous remercie.